Seydou Bara waxoon ne amaan na ko yàlla lalee la ciy mujj mooy alhamdulilah waaye bu ko yàlla la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek moo ciy mujj lu nag ànd diinu ànd yàlla rek moo ko mooy ko laal bis bi di bisu cosaan maam Cheikh Ahmadou Mbaye mu baax ma Kabir di waajuru sëriñ Sam Mbaye moo daan ñëw ci bis bii dafa fekk ci mbokkam Cheikh Ahmadou Mbaye kon mel na ne bis bi bisu dundal ak bokk la ndax maam Cheikh Ahmadou Mbaye mi nga xam ne ñëpp jiin nañu ko wilaaya bokk ci arifooni bi la yi nga xam ne moo daan jóge ca Louga ñëw fi fekk si ni Cheikh Ahmadou Mbaye mbokkam ñuy dundal seen bokk xam nga nit yàlla yi fuñ teg seen tànk rek. am lu fa suñu borom def te loolu maam Cheikh Ahmadou Mbaye mi ñëwoon fii waxoon na ko ba ko fa Fallou fekkee Louga. ne na woon yàlla ngeeg jaam ñoo xam ne barab buñ wàcc bekkoor jax ca barab ba. te wax ne sax pàkki suuf yi da leen di yàkkamti ndax fuñ wàcc rek yàlla def door fay waamee ci la ko sëñ Fallou tontoor ne ko ku dajeeg noon baa nga siyaare nu yàlla tàggaleel ak bakkaar daal ne siyaare nu day tax mucc ci ñàkk ak gàcc loolu la Cheikh Amadou Fadal waxoon maam Cheikh Amadou Mbaye Kabir teg na tànkam ci suuf si suuf si mu nekk tey di fàttaliku sëriñ Sam teg na fi tànkam ay yoon sax di fekk si maam Sam Amadou Mbaye ñu dundal seen bopp bi mu demee njaboot di ko di ko doonante ku mag toog ñëw fi ba boroom bis bi moo fi mujj ñëw di Serigne Sam Mbaye bi nga xam ne moom la si Ibrahima tànn jagleel la ko bis bi ngir moo mujj ci yëf yi moo fi mujj ñëw di borom xam-xam di ku la gën diine ñu ko ci fàttaliku jaar ci fàttaliku ci moom waaye maam Cheikh Amadou Mbaye nag moo fi doon ñëw di fekk ñu dundal seen bokk. bis bi at mu ne ñu tànn kenn ci ñi dëkkoon fii tudde leen ko Ibrahima it jublu ci dundal ak bokk ak dundal mag ñooñu nga xam ne ñu bari fàtt nañ leen mu di leen tuddi bis yi ngir nit ñi di leen fàttaliku di leen nafaraat ba mën leen a jàng mu tudde ko sëñ Cheikh Abdou Mbacke moom bàyyi sëñ Mbacke Ramata mii borom barab bii Cheikh Abdou mi nga xam ne moo njëkk a wuutu bàyyi sëñ Ramata di nit ku baax koo xam ne jikko yi nekkoon ci bàyyi sëñ Ramata mooy la ma ko yare woon mooy jàngal ko alxuraan yar ko yarub diine jàngal ko jaamu yàlla muy dunde aw ñaqam loolu rek ci la sax ba ni muy jibay sëñ Mbàkke Ramata loolu ko xam sëñ Cheikh Abdou ñu jagleel bis bi xam nga ko ci loolu mu doon dund mu doon nit ku baax koo xam ne jaxasoog moom ndax nit mën naa baax sax te du tax nit ñi mën a jaxasoog moom waaye moom jikkoom ju rafet moom Serigne Cheikh Mbacke moo taxoon moom ginnaaw bi ko ma noppi te jàngal ko bàyyi Serigne ñi tànnal koy way jur way jur mu jigéen di doomi Serigne Omar Mbacke bàyyi laa ñu tudde ko sëñ Abdu Mbàkke dër bi sëriñ mi tudde bés bi sëñ Abdu borom dër ko bàyyi sëñ Mbàkke Ramata tudde mu yar ko boo xam ne it ci loolu doon dund rafetal dundin wa it lool ba ni bàyyi sëriñ meloon ci jëf ju baax mu wutu ko ca loola ba diir li mu bàyyi sëriñ lépp lu bàyyi sëriñ naaloon def na ca la man def na ca lamu man ci ak dundam ba ni ak dundam jeex mu dem ndakaari jeg boromam moom Serigne Cheikh Mbacke moom Mbaye si Mbacke Ramata xam ne moom la ñu bis bi waaye ginnaaw bu ñu ko tuddee si Ibrahima day tànn yeneeni mag di leen ko dara jaale yoo xam ne dañoo neen fii di jaamu yàlla di la lëggeel seen borom mu di leen dara jaale bi si ngir nit ñi xam leen mu tànn ci sëriñ Ndiagam Dieng ak Serigne Ndeye Dieng ñuy ñaari mag ñoo xam ne ci lu baax lañ nekkoon dunde seenu ñaq di jaamu yàlla su Ibrahima tànn bis bi ngeen dara jaal leen ko ngir nit ñi xam leen ndax xam giñ leen di xam ak di leen fàttaliku dana baax te ñoom ñu dem waaye dem ñu jural nu nit ñu xam ne ñi ñuy tuddi bis bi nit ñu baax lañ nekke woon fi ak baax ndax bis nag bu ñu koy tudd nit jikko ju baax a tax jikko ji ca des nag néew na lu ko tuddee kenn kon ñaari mag ñi mu tànn dara jaal leen bis bi ginnaaw mu ko tuddee mbokkam Cheikh Abdou Mbacke moom sëñ Mbacke Ramata nga xam ne seen ñaari maa ngi ñoo bokk lépp mu tuddee ko ko ngir wane rek lim seqoon ak sëriñ Cheikh ak la leen maam ya bàyyee woon ak bàyyi ya te dund ca moo tax si Ibrahima tànn bis bi tuddee ko ko moom Serigne Cheikh Mbacke moom waaye mu jagleel ko ñaari mag ñooñu nga xam ne it nit ñu baax lañ di dund seen ñàkk di jaamu yàlla di liggéey ba noppi xam mag ña wala leen a roy ci sàmm aku baax lu ngeen fi gis mu taxaw nag ñooma mag ñooñu ñuy fàttaliku lu ngeen fi gis ñu taxaw rek ñooma bay faral di wax nag ne nun war na noo baax li ñuy fàttaliku mag ñi bari na ak li ñuy gàmmoog li ñuy màggal fi ne mënoo xëy suba ba ngoon te dégguloo bés bu ñu defal nitu yàlla mënoo xëy suba ba ngoon te dégguloo bis bu ñu defal nitu yàlla waaye nag war nay jur résultat ci nun mooy nu fexe ba mën a roy seen jikko ya nun nag sun Sénégal royoonu ta mën noo yéemu nag te bis bii dey du bisub como ku fi ñëw da xam ne bis bi yàlla na ndax mag mu yàlla moo fi doon ñëw baba ci lañ fa ci di maam si Amadou Mbaye mag ñi liggéey nañ moo tax bés yi war ñuy jural ak tiit di ñu jural ak fàttaliku di ñu jural ba ba ba xëy nu def dara ba nu ñu fi jógee nu man noo fàttaliku ndax ñoom ñii kat yaafus suñ tëdduñ moo tax fi ne sunu yaafus mënut a yàq dara ci liggéey bu mag ña sunu yaafus mënut a yàq ndax ñoom dañoo farloo. lëggéeyal seen borom di ko jaamu sax ci jub amuñu woon ay kalan nun ñaari ñu dee teem galan yi ak business bi bari na lool ak <laughs> yenn yëf yëfaan yu bari <laughs> léegi ko naw <laughs> balaa yàgg rek nga gis ci moom jikko yoo xam ne da nga ko mujj xebet fi da léegi ñu tagg nit lool ci baax tagg ko ci yiim ko ci lu ne gaa yi ko ko waaye da mujj daal di ko ci tooxi doonu yoo xam ne da ngay mujj sax na gi lu mu ko man a dale moo tax fi toujours trompement dinu daal ndax ñun yi ñuy jàppi nit yi ñuy jàppi nit moo mënta nawe nit nit jikko ko lañ koy nawe ak jëfam ju baax fii léeg-léeg Sénégal gi di koy wax ne man gor laa ci ñaari gor laa juddoo ma ñetteel leen golo ñaari golo ko seq muy golo kon jikko te fi ne yi ñuy tawat muy kiris bi ñuy tawat nun kiris bi mu dal mu gën a moo gën moo gën moo gën a mat a tawat muy kiris jikko fi ne jikko moo yàqu jikko yi mag ñamoon ma ci ñàkk lool jikko yu bari yàqu na nit ñi sàmmatuñ ngor sàmmatuñ diine loola waaye wax mu dañ koo lebal du la fay loo dénk waaye mu lekk ko koo wax secret mu ñëpp bu dégg ko yàqante dara gis nga ni mu mel ni mu tasaaroo lu nit baax baax baax baax am na ñu lay jam ñu lay tegee der ñu lay wax lu bon lépp ay jikko yàqu la yoo xam ne mi ngi ci suñu biir te mag ñi meluñ woon noonu sëñ Mor Mbaye Cissé mu baax ma si mu soom si mu laa dégg mu ne sëñ Mor Mbaye Cissé ci xam nitam gi sëñ Mor xamul nit dafa am soxna su ko daan defal ay taraanga ñu ne sëñ Mor bana la sëñ Mor na ñaar fukki at yii de jàppoon na ma ko di def ci man lu baax naa toog ñaar fukki at yu ba ko gisut muy def ci man lu bon ma door a xam ne may defanteeg moom <laughs> sëñ Mor saa loolu war nañ cee jàngale loolu ku ne war nañ cee dugg ruxu mën a man soo ma ne woon Mountakha Gueye baanaa la duutuma ko tudd waxuma sax ma di ko ñàkk tudd waaye damay daal di seet ay ayibam yi mu am ma di ko waxtaanee mais am na yu baax na fi di nit it amu tey bi rek di dem waaye xoolal sëñ Mor ni mu jàngi nit diw bana la sëñ Mor ne ñaar fukki at jàpp na ma ko di def ci man lu baax léegi damay toog ñaar fukki at yoo xam ne léegi gisatuma ko te muy def ci man lu bon. ma door a xam nu may defanteeg moom kooku day yàq ab der de su ko nit bala la rek mu daal di koy bàyyi yooyu jikko yëpp fi ne daa mat a waxtaane muy ni jikko yàqoo ak jikko yi mag ñi amul ni ñu baaxee kii ñuy fàttaliku kat borom jikko ju baax la woon Serigne Sam Mbaye sëriñ Sàmbay ginnaaw bi ko maam Cheikh Amadou Mbay doonee waajuram li mu am jikkoom moo ko ko may ak jëfam akuk jaamu yàlla am sëriñ Saam fàttali guñ koy fàttali ko saa boo xëyee balaa jant so nga digg ay waxam loolu jikko ma ak jëfama donte baax nay baax nay waajur nag ndax sëñ Mamadou Mbay baax na bokk na ci mag ñi nga xam ne Sëñ Tuubaa bàyyi woon na leen xel Cheikh Ahmadou Fadal daana wax ne maam Cheikh Ahmadou Mbaye ak Cheikhul Khadim ñoom ñaar ñoo fi dikkandoo ñoo jógendoo asamaan Sëñ Tuubaa dal ci kekk mu dal ci gannaaw xam ne bu tóonoog Sëñ Tuubaa di moom kon amoon nag wilaaya kuñ ne bu tóonoog Sëñ Tuubaa di moom rëy nga rëy nga ma xaama de Sëñ Tuubaa ni mu ak li ko boroomam defal Sëñ Tuubaa moom kuñ ber la waaye gis nga maam Cheikh Ahmadou Mbaye Sëñ Tuubaa koo fonkoon maa ngi téere boo xam ne am naaru gànnaar ko bind ci moom xam ne naar ba dafa wax ne fukki at ak juróom-ñett ci la tàmbali dina fi la téeméer rakk ak ñaar fukk te téeméer rakk nag man sëñ saam laa ci nawoon sëñ dëru Assane Ndiaye sëñ mi yasinu mi jëng sëñ dëru Assane Ndiaye sëñ mi yasinu mi jëng sëñ Mor Diarra ñooñu ci mag ñi ñoo fi doon julli téeméer rakk. Cheikh sàmm Mbacke sax ñaar fukki rakkal daan julli guddi gu ne mag ñi nag ñëpp daan julli guddi moom ñoom du ñoon ay nelawkat mag ñi dañ ci tudd ñooñu rek waaye ñoom ñëpp ku ci masa guddi masa jot wàcc nga sab lal song sab der sa njàppam gee ci ngay julli fajar loolu leen sëñ Tuubaa yaare ca leen digal nelaw guddi moom seeb la nee na bi fi sëñ Tuubaa jógee ko ñeme nelaw guddi bi fi Seexul Xadim jógee lees ko ñeme kon nag jikko yooyu mag ñaamoon nag ñu di ko waxtaanee ci bis yu mel nii bañ di ci roy nga xam ne bis yi nga xam ne day dem di delsi saa dikkee war nañ cee am jënn jikko roy ko ci ñoom ndax sëñ Cheikh Awa Balla nee na roy mënut a ñàkk roy mënut a ñàkk waaye nee na man ñaar laa ko def nag Cheikhul Khadim borom Daarul Muxti mënuma leen a séen waaye fooy toll da nga dégg sëñ Cheikh Awa Balla baax. Cheikh Ibrahim ak ay kilifaam ci jataay bi ñu toll ñoo ngi tàmbali ci waxtaan wi. di jiital ci nag waxtaan wi ñi nga xam ne mooy ñu nu tànnoon seppi seeni tur tuddaleen bis bii ñu ñëw ci jataay bi ànd fi ak mbooloo yu takku jëf fi jëf ju rëy yoo xam ne ju ànd ak yéene la te yàlla rekk tax te téere ba moo wax ne ku jëf-jëf ju baax ngay góor ngay jigéen da nga jot ci añ ba te ñoom seen jëf mat na sëkk ci rafetal lu jiitu jataayu tey bii ci seen digganteeg way jur ya muy kilifa yi nga xam ne mooy sëriñ Baye Ndiaga Dieng ak Serigne Mbaye Dieng ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu tudde bis bii nga xam ne ay kilifa lañ yoo xam ne ñoo ko way jur yi ñoo àndoon ànd bu yàgg te lépp rafet loolu def jeexit ci Cheikh Ibrahima mii nga xam ne kenn la ci keneen kilifa yooyee mu tànn leen tudde leen bis bii waa kër sëriñ Mbay Jeng ak waa kër sëriñ Njaga Jeng mboole seen ñoom ñëpp njaboot gi teew nañ fi teewin wu rafet teewin wu mat wu matale jëf itam jëf ju rëy joo xam ne jëf la joo xam ne yàlla rek a tax aku kóllëre te yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne na di yokk kóllëre yokk kóllëre moo gën ku koy dog ñoom def nañ loolu kon sëñ Ibrahima sant na leen bu baax a baax a baax gërëm na leen ci njiital sëñ bu Dieng mi nga xam ne mooy kilifa ak mbooloo moomu ànd ak ñoom ànd ak mbooloo mi yëpp ñëw ci liggéey bi sëñ Ibrahima nee na wax ji mat na jëf ji mat na sant na bu baax a baax a baax li taxoon mu def ko mooy feddali kóllëre diggante kilifa yooye ak kilifaam loola moo taxoon te loolee xam ngeen ko jàpp ngeen ko jëf ngeen ci lu mat a jëf wax ngeen ci lu mat a jëf itam te yàlla rek tax kon nee na sedd na lool te am na yaakaar ci ne kilifa yi itam nga xam ne ña nga ca barsaqal muhammadiya ñoom itam seen xol sedd na ci te rek la ci bëggoon kon nee na mi ngi leen ci sant mi ngi leen ci gërëm mi ngi leen ci ñaanal yéen ñii fi des te taxawe yàlla na ngeen ko yàgg lépp lu ngeen jëfal waajur yooyee yàlla na doon lu yàlla gërëm barke Cheikhuna Cheikhul Khadim bëgg na ci lool fu mu ci fu ci njortam tollam rek seen jëf ji weesu na ko gis na ni ngeen ci taxawee bi ñu ko tuddee sëriñ bi ba nëgën yi yéen a ngi ciy dox yéen a ngi ciy wax yéen a ngi ciy jëf ba jëf ci jëf ju rëy yu toll ne jii ngeen ci jëf xam na ko jàpp na ko yaakaaram dolliku na ci di taxoon mu def ko kon nee mu ngi ñaan ci barke Cheikhul Khadim lépp lu ñu am ci bis bu tedd bii ak bis bu màgg bii yàlla na ngeen ko bokk ak ñoom yàlla na fekki waajur ya fañ nekk mu doon ay ngëneel ak i leer ca fañ nekk ci barkeb Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant nañ leen bu baax a baax gërëm nañ leen waa kër Serigne Mbacke Ramata ci ki nga xam ne tànnoon ko ci tam tànnoon ko ci itam muy kenn ci kilifa yi di Serigne Cheikh Mbacke Ramata moom itam ak njabootam teew nañ yëpp jiital sëriñ Touba Mbacke mi nga xam ne itam mooy kilifa jotaay boobu ñoom itam naka ni ma ko waxee fee rek la koy waxee fii képp ku xamoon Baye Mbacke Ramata xam ko ak sëriñ Touba mbay ñoom ñaar doonuñu woon ñaar kenn lañu woon loolee doom yi ak sët yi di ko suuxat di ko suuxat ba mu yegg si fii képp ku ñëw fii xam ne diggante sëñ Touba Mbay ak sëñ Mbàkke Ramata lépp benn rek la du ñaan kon nag ànd boobee kilifa yi àndoon bàyyi fi njaboot bi ñu ànd ba tax ñi tànn ci kenn ci ci ay njabootam muy sëriñ Cheikh Mbàkke mu baax mii nga xam ne moo fi bàyyi ko yàggut di ko ci ñaanalaale itam di ñaan ci barke alxuraan barke jotaay bu tedd bi lépp luñ ko ñaanal yal na ko ci yàlla jotale yàlla yàlla gërëm lépp di ko ci ñaanal ci jataay bii lépp lu ñu fi jàng ci alquran ak xasida ci suba ba léegi ñoo ngi ko ci yéene te yàlla na ko ci yàlla jotale li sabab bi mooy kenn rek woon ci Cheikh Ibrahim féete woon na ko foo xam ne Ibra jàpp na ne foofa moom rek moo ko fa mën a féete kon nag deseelu ko leen mënalu ko leen lu may di ko ñaanal ci yàlla te yaakaar yàlla def ko kon yàlla yàlla jotal ko ci ñaan googu dolli ko yërmande ak njéggal fa mu nekk ci barke Cheikhuna Cheikhul Khadim ak soxna Aminata rek. la ko waxee soxna ami Aminata njaay ki jiite ab liggéeyam di sëriñ Balla Lay soxna Awa Si ki nga xam ne moo jiite mbooloo moom itam di soxna Ami Fall ñoom ñëpp rek Ibra nee na gis na seen teewaay ñëw ngeen ni ngeen war a mooy ñëw bu mat gu ànd ak yéene te yàlla rek tax waaye jëf joo xam ne yàlla rek tax borom dana jariñu kon yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla gërëm ko yàlla na yàlla dolli ñoom dolli leen fañ nekk ñoom ñëpp ay maqaam ak i leer ak i ngëneel ci barke Cheikhuna Cheikhul sant na leen bu baax a baax a baax bàyyiwuñu kenn soxna Awa moom itam moom mi nga xam ne moom lañ dara jaale bis bi moom itam ñoo ngi koy sant di ko gërëm di rafetlu teewaayam ci jataay bi itam moom itam jëf na ci lim ci war a jëf lépp lu ci mat a waxit wax na ko te dara waralu ko lu ma yàlla ak yonanteem ak kóllëre rek mooy li ko waral kon nag moom itam ñi ngi koy sant di ko gërëm di wax na jëfam yegsi na tey mat na yàlla ko yàlla gërëm barke naa Cheikhul Khadim euh, ba tey itam suñ bokk yi nga xam ne ñooy suñ bokk politiciens yi li ko tàmbalee ci monsieur le ministre Gallo Ba moom itam yónnee na fi jiital ci Serigne Mor Anne Gueye mi nga xam ne mooy adjoint maire euh, sëñ Gallo yónni na ko fi boole ko ak teraanga yu baree baree bari jël loxoom bu baax a baax def ko ci bis bi na mu ko daa defee wala sax mu def ci lu ko raw kon Ibrahima nee nag yëg gis na ko jëf ji gis na ko yëg na ko dalo mi ngi lay ñaanal te di la sant di la ñaanal li nga bëgg ci senegal ci lu baax lépp yàlla na ko yàlla defal barke Xaadimu Rasuul ndax kat réew mi ñun rek ñoo ko bokk ñoo ko moom képp koo xam ne def fi lu baax la tax a jóg yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla dëgëral ci barke Seexuna Seexul Xadiim euh, Sëriñ Mbàkke Fay moom itam ñëw na fi ànd ak mbooloo mu takku moom itam jëf fi jëf ju rëy jëf joo xamante ni bi ñuy demee di ko waxee bis ba na mu waxoon na ni la ko defee noonu rek la ko defee ba def ci lu kawe njortam moom itam bokk ci ndaw yi dëkk bi bokk ci ñunu yaakaar ëllëg ci dëkk bi ñu taxaw fi taxawaay bu baax moom itam ñoo ngi ñaan ci barki Sëñ Touba yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla kattanal ko ba li nam ci dëkk bi lépp ci lu baax mu def ko nan ko soobee suñu borom mën na ko sañ na ko yàlla na ko defal sëñ Abdoulahat Lo moom itam di jarbaat ci Iba Guèye moom itam def na ci bis bi jëf ju mat sëkk yónnee na fi ndaw boole ko ay teraanga kon ñi jàpp bis bi fonk ko dox ci wax ci jëf ci loolu mooy waral ñu leen di tudd te di leen sant leen gërëm bàyyiwuñu leen benn yoon ñoo ngi leen di ñaanal luñ jëf te yàlla tax yàlla na ko yàlla gërëm barke Xaadimu Rasuul kon sant nañ jataay bi yëpp ñu fi toog jànkat yëpp. mbokk yi ginnaaw bu ñu siyaaree. الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام لطائفة المريدية di ko ñaanal mu yàgg fi lool te gën a wér ak njabootuk Serigne Touba gépp ñaanal Serigne Cheikh mu sëriñ Salihu yàgg fi lool te gën a wér ak njabootu Serigne Touba gépp ñaanal Serigne Abol Baraka ibnu Cheikh Mouhamadinil Fadil yàlla yàggal ko fi lool te gën a wér ñu ñaanal Serigne Cheikh Isma mi xalifa moo Diarra mu yàgg fi lool te gën a wér di nuyu ñi fi teew ñëpp nag bàyyiwuñu kenn munazaba sikra asayxil jalil sëriñ sàmbay taxammadahu llahu bi rahmatihi wa askanahu fi fasihi jannatihi amin mu mel nii li tax ñu daje fi mooy sëriñ Ibrahima Mbay mooy def saa yu waxtu wi jote ci at mi muy fàttaliku sëriñ Sàmbay xam naa sax mën nañoo wax wax yeesal fàttaliku ndax xam naa ne sëñ Sàmbay kenn du ko fàtte sëriñ Sàmbay dafa amoon xaas ci diine am xaas ci yoonu murit ci ay waxtaanam te sëriñ Saaliwu nee ne bokk na ci liggéeyal sëñ Tuubaa fekkoon ku narta xam sëriñ tubaa nga fexe ba mu xam sëñ Tuubaa bokk na ci liggéeyal sëriñ Tuubaa bokk ci liggéeyal sëñ fekk dong bu nekk ci daara yi sëriñ tubaa wérad yi nga fexe ba faj ko ba mu wér bokk na ci liggéeyal sëriñ Tuubaa daal ne ak lu sëriñ tubaa def muy liggéeyal ko dégg wax ci de ak lu sëriñ tubaa def muy liggéeyal waaye nee na wékk sa mbubb tiim ceebu jënd fas yéene lekk ba regg naan damay liggéeyal sëñ Tuubaa sëriñ Saaliwu neen du liggéeyal sëñ Tuubaa kuloo wasarabo mu baax la lu ñu daganal la boo ko bàyyee nag bam nar laa lor mu dugg ci lu xaraam waaye tolloo wut ak liggéeyal sëñ Touba liggéeyal sëñ Touba dara tolluwu ni fekkoon ku narta xam sëriñ Touba nga fexe bam xam sëriñ Touba bokk na ci liggéeyal sëriñ Touba ndax sëriñ Touba yàllaa ne ko ku la xam mucc hëb lillazi xadamani ihsaana malakanaw naw insana sëriñ na képp ku may liggéeyal yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ko ak njekk moo xam malaaka la moo xam jinne la moo xam nit la sëñ bi damaa bëgg ñu seet ñu bàyyi xel loolu bu baax nañu ñu ma déglu tuuti rek hablil lazi xadamani ihsaana malakanaw masturanaw insaana dégg nga li wax de yow yàlla maa ngi lay ñaan ku ma liggéeyal nga may ko njekk ihsaan njëkkewul nit de daf ne moo xam malaaka la moo xam nit la moo xam jinne la jinne sax la jiital doog ca teg nit moo xam malaaka la moo xam jinne la moo xam nit la seet leen ñett yooyu nee na ku may liggéeyal ci ñett ñi nanga ko may ihsaan te waxoon na ni lu ma ñaan yàlla fekk na mu jox ma ko ba nopp ma da ñaan nee na su ma jëlee sama xalima bëgg a bind rek sunu boroom ne ma xanaa xamoo ne mayoon naa la ko ma ne ko waaye bàyyil ma ñaan ko ngir ay teggin lii awsali lladi uridu wan faay biyal wara yaa muxniyan an mid faay lu ma bëgg mu ñëw la wax lu ma bëgg mu ñëw daal ne ko nag jariñeel mbindeef yi ci man xanaa xamoo ne li fi xew lépp mbindeef yee tax yàlla sàkk ko li yàlla tere sax mbindeef yee tax dara génnul mbindeef yi lépp mbindeef yee tax li yàlla tere sax na bu ko kenn laal mbindeef yee tax sëñ Tuubaa ne lu ma bëgg mu ñëw dal ne wala yi taqoo du su la waxta tala bi nee li may sàkku ba ma koy sàkku nga ma koy jox kon lim ñaan yàlla may na ko ko kon malaaka mu ko liggéeyal walla jinne ji ko liggéeyal wala jinne ji ko liggéeyal wala nit ku ko liggéeyal am na njekk ndax yàlla may na ko ba noppi looloo waral jinne yi liñ xam ci sëñ Tuubaa nit ñi xamuñu ko fi ne bu ko nit ñëpp xamoon wuti sëñ bi waaye xamuñu ko fi ne jinne yi ñoo ëpp xam-xam nit ñi ci sëñ Tuubaa xanaa xamoo ne jinne lim xam lim xam ci boppam nit xamu ko ci boppam ndax ki weddi yàlla ci nit xamut na daa weddi yàlla te jinne yi te jinne yi ñoom xam nañ seeni yéefar xam seeni jullit fi ne jullit ñi xam nañ ne ay jullit lañ yéefar yi xam ne ay yéefar lañ te ñun te ñun ñi ciy jullit ñoo xam ne ay jullit lañ ñi ciy yéefar xam ne ay yéefar lañ waaye jinne yi ñi ci ay ñi ay yéefar xam nañ ko ñi ci ay ay jullit xam nañ ko. nañu roy sëriñ bi tuuti sëñ bi bi ñu ko wooyee bi ñuy denc Mamour ren Sali dafa jóg dox tuuti dafa jóg dox tuuti taxaw na lu ngeen wax dinaa ko dégg mooy mooy taqati riqaab jooju muy wax jéggi loo si mbooloo mi ñun dañoo am sëriñ boo xam ne mënuñoo roy lu ko ëpp mukk ci àdduna muy sëñ Tuubaa mënuñoo roy lu ko ëpp lu ngeen wax danaa ko dégg waaye ñam doon waxal ñooñe xam nañ kanay sëriñ tubaa ndax sëriñ mu Mouhamed Numme Marsil ci la bokk ponkal mu rëy moomee ma waxoon sëñ tubaa nga xam ne bayit wum gendiku la wa xam wa kam abin xala ala bibnin zura sarafin kama alat bi rasulillahi adnaanu nee na bëri na baay boo xam ne doomu ko yëkkati sëñ Tuubaa lay wax di ñun ñooy sa baay waaye yaay ñu yëkkati nee na Adnaan ci rasul la yëkkati ko wa kam abin qad ala birnin zura sarafin kama alat bi rasulillahi adnaanoo moo tax moo tax biñ ne ko exil mu ne fu ngeen lu ngeen wax danaa ko dégg loolu sax nag agsi guma ci woon waaye ci jinne yi laa nekkoon habli lasi xadamani ihsaana malakanaw masturanaw insaana moo tax moo tax suñu xalifa bu mag bii ne jinne yëbu ko ne ne malaaka yëbu ko ab yonent yëbu ko wax la joo xam ne ju ko gën a xam-xame amul lu leer laa leen di wax sëñ bi hors série la sëñ Tuubaa yàllaa ko def noonu mu mel fi ne bu leen defee ne moo ko def boppam yàllaa ko ko def baaha rasulullahi kullal anbiya alayhimu atqa salaamay rabbiya bi qurbati isra sinina bi xidam xaalisatin lisil wujudi wal xidam nee na yonent yi la la yonent bi teg na leen kaay leen sama xeet wi am na ci benn fardu boo xam ne moo gën yéen ñi ñëpp kaay leen ñu ne ko lan la mu ne fukki at la def yoo xam ne wenn fukki at mu si ñeemel baaha rasulullahi kullal anbiya kullal anbiya alayhimoo abqa salaamay rabbiya bi qurbati isra sinina bi xidem xaalisatin li zil wujudi wal xidam sëriñ tubaa neen def naa dix yoo xam ne dix ans yooyu bi da koo mu mel ne or ci moom wurus di ko kaam-kaamee ndax xam na ni fukki at yu mel ni musta am fukki at mooy doxub yonent samaaniya hijajin waaye fa in at mamta asran fa min indik xam naa ci lenn moom sëñ Tuubaa bu ñu koy waxtaan te muy dëgg ruu dañ koy téye ixlaawu abdin nafasan min taa jibu xasratan fi saa nit ki ab ak noom mu neenal ko ci ay perte nga nee na perte nga lay jur gu ànd ak rëcc yomal xeem te waxtaani sëriñ Tuubaa ku ko def te muy dëgg nit ñi lay dëgg li daan nux nux ci seen xol mën na leen yóbbu foo xam ne dara mun leen faa yóbbu lu mel noonu sëñ tubaa rek ko man mag ñi doon dox ci kaw sàkket yi di naan ay ndox yu tàng bu leen defe ni ñooñu dañoo doon ñoo xam ni bu leen defee ni ñooñu dañoo doon ñoo xam ni dañoo dañoo yoroon ay xar bu fuufa li sëñ tubaa doon feeñal seen kanam moom lañu àttanul moom la sëñ xaas wax sëñ xaas mu sëñ afiya sëñ xaas xam nga sëñ xaas jaawartu bi bi ko sëñ bindee jaawartu na kenn du ko wax gaa yi jaawartu rek la ñu wax nañ fi indi liif gi waay mu doon jaawartu jaawartu rek la ñuy wax jaawartu du waxi dara moom jaawartu sëñ xaas jaawartu bi ko sëñ bindee ci njaareem sëñ xaas a ko njëkk bindal sëñ bi daa bind jaawartu laaxa bi kitaab bi bañ a alsaxeer gi jox ko ko ne ko demal demal nga demal nga bindalaatal ma ko sëñ xaas bind jaawartu bi ba mu noppi waaye bi kitaab bi noonu la ko bàyyi bi tollee ci maas ci la ko sëñ bi woolu sëñ xaas daal di jóg ne ko ndigal lu màggat du màggat ba lu yees di ko toxal jógal ñu ànd nga di téel ma daaji may maas ñu wut wut sëñ bi sëñ xaas mi ngi maas di def nii di maas ba mu agsee sëñ bi ne ko jox ma jox ma jaawartu bi mu jox ko ko sëñ bi banque ba banque alsaxeer gi kon xëy na mën naa am bi mu ne bi mu ne bi kitaab bi bi ne bi kitaab bi mën naa am yàlla daa tàmpe gu tudd alxuraan lay yoo xam ne wala damir bi fan lañ ko war a delloo moo tax mu ne bi kitaab bi yem ci ndax xam naa ne booba jaawartullaaha dëkkaale na maag yàlla waaye bi kitaab bi ca téeréem ba sëñ Tuubaa ne alxuraan laa dëkkaale yàlla man ilaa duxóoliye ba ba may dugg nag taxu mas ngeen dégg tukki boo xam ne aljanna lay teere yi sëñ Tuubaa rek képp ku ko wax ci àdduna boo dajeek yàlla di ko rëccu ku dul sëriñ Tuubaa waaw wa kulli bi am nen at la xaala wax sama lépp am na sécurité dara du yàqu sëñ xaas nee na dafa am melokaan wum ñu feeñoo keroog wum ñu musta feeñoo ñun daal dañoo jékki-jékki woonu rek sëñ xaas ne ñu fekk mu toog nee na cawal yi buñ buñ teppi buñ cuub teppi ko ba pare ñëwaat ko fi yi nga xam nañ ko tepp tepp woon weex weex yooyu nee na nee na daraa la ci sol ba léegi yi feeñ nee na léegi sëñ Tuubaa gën rafet ci àdduna yii sëñ sëñ xaas nee na ma ne eh, waa kii ko mu ñu ah, mel na ne waajee de mu def boppam neen ba pare watu nee na di di segg kafe sëñ xaas nee na mën a waaw kii du moo demoon océan atlantique wa min sadafil bahril muhiti bada fa min tala lu ihi fiihi loo yoonu oo yaara fa ujbi li kii mi imtihaanin xada nu daarul wara yaa xootatan la la tubaara wa badrun muniirun xaaba fil faqar bi summa laaxamil xar bi samsan rifaatan wa intisaara fa yaa ajaban baabul mataabi mufattahun li kulli muridin raama minhu jawaara ani an li si diinil garibi xada yati u sururan minkum waftixaara loolu la ko Cheikh Saxdu Abo wax sëñ xaas ne bi ma ko gisee mu toog ma ne waaw kii du moo demoon ci géej gi kii toog nii di segg café waaye nee na nu doy war lay seggee kafe nee na ci bangab dénk la toog nee na bu seggukaay bi demee ba ba ngiis mu ne bëre tànk ci dox ak doxin rom matal la daan dox sëñ xaas nee na ma ne waaw kii moo demoon Océan Atlantique ànd ak tubaab yi juróom-ñaari at moo tax mu ne wa ka nii saraytu bila musaaraka nee na wa saraytu maha kathirin min annaasi wa ka an nii saraytu bila musaaraka sëñ tubaa nee na bi may rañaan am na mbooloo moo ma àndal waaye dafa mel ni ànduma mbooloo ndeke sëñ bëgg yàgg naa bëgg éliminer mbooloo mi ndax xam na mooy bi mu jàpp bi mu déparé Mbacke Bari Mbacke yi képp koo xam dem nga ca màggal ga na ngàmm te xooloo Mbacke yi xool ni mu demee xamoo sax li xew xam nga baar yi dafa am tund wu fa nekk fi ne waa Mbacke Bari tund woowu ci li nga gis Sëñ Tuubaa tund yu mutul un kilomètre ak kër gi sëñ bi bi mu duggee ci tund yu ba ba amunullaahi dugg lañ gëj a gis sëñ bi bu juróom-ñetti at gisaat bi teguñ ko bët xam nga xam nga lu doy waar laa lay wax ndax yéen a ngi jàngat li ma bëgg a wax wa wasal naa xubaylal fajri laa Louga sëñ bi ne na njëkk fajar tuuti xam nga sëñ bi sax li gën a doy waar sëñ Muntaxa natt gi muy natt ba nga xam ne tukki bi waxtu yi du ko fekk ci yoon wi xubaylal fajir yi xubay bu doon lal xablal yi mën naa am njëkk na ku lépp mais xubayla la wax da ko da koo tasxiil xubaylal fajri njëkk tak njëkk tus fajar tuuti la agsi fajar jot kooku dafa at waxtu kii ñuy bëgg a màggalal muy waajuram mas na ko wax ne ko am na bis boo doon dem ci aw xew boo faatoon waxtu ma dëpp te ndeke gee yi daa naroon a faat déglu leen li may wax de ñu jékki-jékki yëre yi fas yu dagg soxna si ne ba balañ koo defaraat bay noppi man ma julli sëñ bee ko ko wax moo ne ko waxtu woowee bu faatoon moo la dese woon ci man su faatoon ma dëpp waaw sëriñ bu garaaw lañ am bu naqaree àndal lu leer lu leer laa lay wax hmm. ila ilal xariyatil bi Louga wa ana fi tilka laylati mimman ala llahi taala wahdahu rakaa hmm. wa xil naa fiiha wa ana adlu xayra zikri wa usalli ala man bi jaayihi kulla makrin moo ko wax de hmm. nee na man yàlla rek ma tax a jóg nee na xam nga lu ma fa nekke woon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne wa sallaytu salaat al asri inda safinati al bahri inda safinati al barri nee na ci biir géej gi ci biir gaal jéer ci laa jullee takkusaan fi ci kaw ci gaal gi départ la julli takkusaan ci dégg nga wax ji nee na fa la jullee takkusaan subhaana man fil barri wal bahri maa ajral jawaariya wa kullan jamaa subhaana man lii jaada bi safina fi xidmati li zaahibil madina est-ce xam nga ne gaal gi mu waroon ba muy tukki dañ ko jox addiye lu doy war laa lay wax dañ ko ko jox addiye ne ko gaal gi kenn dootu ko war fi ne gaal ga fa mu gaare fa la suuxu gaar gi sëñ bi déparé woon fii ci déedéet ndakaaru bi mu agsee ba Gabon ba teer ñu ne ko may subaana ma liy jaada bi safina yàlla ma ko tabeel na ma amal gaal gaal ga yaa ko moom tukki gi ci tukki boo xam ne tukki bi doo doon tukki ñaareel kon gaal gi walaa bëlatul pour kenn moo tax gaal gi daa dem ba suux سبحان من اللي جاد بالسفينة في خدمتي لصاحب المدينة yooyu yooyu yooyu yooyu dafa mat a jàngal yooyu dafa mat a jàngat lépp ak la ma yor lépp maa gaal gi ajjuma ajjuma laa dugg ci gaal gi ndax sëñ bi bi mu ñëwee benn fan moo des ci weeru gàmmu mu yowmal xamis yowmal xamis jooju koor la jëlaale ndar koor koor googu koor googu mu ñëwaale dogu ko dogu ko de xam nga toog na di waajal ndogu nee na may waajal naan ak jullit timis ñu fekk ma fa ne ma kaay wuyu nee na am ku ma fekk na ma kaay wuyu ma ñëw loolu dama koy tëb ñu dugal ko foofee du ko dugal loolu dama koy tëb moo tax sëriñ Fàllu bañ ko posé question tubaab bi pose question ne ko dégg naa ko bañ tubaab la sëriñ Fàllu ne waat su ma su ma des gor ndax li ngeen bëggoon su ngeen ko amoon dama am sama rakk yu baax yi ma leen am tarakam yu baax yooyu nag sëñ Abdoulaye borom dërbe ci njëkk a feeñ noo ngi julli ci sayidul awalin wal axirin sayidna muhammadin sallallahu taala alayhi sallama moom mi nga xam ne suñ boroom sartal na ne du bëgg kenn du yërëm kenn du jéggal kenn ba te dangaa toppe yonent boobu qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni waxut sax fattabi'u sunnati waxut fattabi'u sabili noon gi daa sës ci yaa gi rek fattabi'uuni la wax noo ngi julli kon ci yonent boobu alayhi salaatu wassalaam waaye di sant sëriñ Touba Xaadimu Rasuul moom mi nga xam ne lu nu am ci yàlla ak yonent bi rek sëriñ bee tax nu am ko noo ngi sant sëriñ Touba am na ko mas di wax ak moom ne ko mbàkke gannaaw bu yàlla ak yoneen bi wéyee sëriñ bi ne ko déglul mu ne teg sëriñ bi ne ko yàlla ak yoneen bi bu ñu wéyee Ahmadu wéy moo tax te ñuy wax sëriñ Babacar Sarr ñu gën ko miin ci sëriñ bay Sarr ci seexam yi ci njaareem bi mu koy wooyee yàlla dafa am naar bu ko wax ne ko ne sëriñ bi sa donga bi mi ngi def sirk billaahi ndax yàlla gi mu lay wooye sëriñ bi laaj ndox boole ko soow ak suukar yëngal ko ba mu jaxasoo nekk njar mu tànk ci jox naar ba mu naan ca lu bari sëriñ bi ne ko li nga naan lan la mu ne ko njar la mu ne ko lu nu boole mu ne ko ndox la ak suukar ak soow mu ne ko ndax man nga leen a tàqale ber soow mi fee ber ndox mi ber suukar si mu ne ko loolu kenn mënu ko mu ne ko moo ne tàqale yàlla ak yonent bi moo gën a yomb fuuf tàqale kooku Babacar saar di wax kon mooy li mu tasawi foon yi di wax ne li nga jeex ba jeex ca ba jeex ca ca dëgg-dëgg desub loola mooy sax des loola tax mu ne dama xayaat yi xayaatullah allahu daaxilun li jinaanillaahi kon noo ngi sant sëriñ Tuubaa nun ñi aju ci moom daa wax ne su fekkoon ne dañu yendoo koor faw di fanaanee naafila faw te ajuwunu ci moom bu nu faatoo donte dananu dem àjjana de danañ jaar sawara ba noppi yaalam bi anna allazina taallaqu biya lawla taalluquhum biya la daxaloo naara baxda mawtihim walaw muddatan xalil qabla duxulihimul jannatu allati mu muttaqun kon ndeke li nu war a sant yàlla mooy boole gi nu booleeg sëriñ bi moo tax Cheikh Ibrahima Diop al machar yi ne ko antal mbakiyul lasi lawlaaka ma sharibat qulubuna min buxuril xisqi anhaara ne ko sunu xol yi buy dëtam ci bëgg ci géej gi bëgg yàlla ba naan ci ay dexi dex yow seexul xadim yow a xetu yàlla bu nuy xeeñ bañ koy bannamti ko yow sëriñ Touba yow la kon noo ngi sant sëriñ bi di ñaan sun borom yàggal fi Cheikh Mamadou Mountakha dolli ak wéram mottuli ay mébétam saaxiran wa baatinan sëriñ Ibrahima noo ngi jël nuyoo yi ànd ak siyaar yi ak ñaan yi di ko jaarale ci yow ñu teew fi ñaari teewaay sama diggante ak yow waaye ma teewaaleel fi Baye mbay itam sëñ Mbaye Ngiraan di sa waajur di sa xarit nga ñëwoon fa yëgal ko bis di jël nuyoo yooyu di ko jaarale ci yow jiital ci nag njabootug sëriñ Mor Jaara gi te ñooy njabootug sëriñ Tuubaa gi nekk ak ñun ci jataay bi muy ñi sant Mbàkke nekk ci jataay bi di sunuy sang noo ngi leen di siyaara bu baax a baax di ci beral na xaas na njabootu sëñ Mbàkke Ramata yi nga xam ne ñoom nga ci sedd bis ndax defe naa sëriñ Chouaib boo ko doon wax marché yi sëriñ bi doon sàkku ci bi sëñ Mor Jaara delloo ci boroomam ña sëriñ bi doon sàkku bokkoon na ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil sëñ Fallou sax njabootam ngi sëtam yi ñi ngi fi gis nga moom marché ba ba muy tàmbali dañuy xiyat dunya fa in sarratka yawman fa inna al usna xaaqibatu sururi wafaatu sayxu ahmadu jaara amrun azimun min mullimati duhuri mu ëllëgee mu jooyloo la rek waaye faatuk sëñ Mor Jaara moom mu ne àdduna indi na bataay luñ koy yedde waaye indiwul lu tolloo ndax moom koo xam ne sa wér di téeméeri ràkk la téeméeri ràkk ku ne xam nga ne su ko nit doon sëgg ka siggi te jàngul dara sax mu doon coono bu rëy bis bu set te bi ñu ko laajee dafa wax ne da ciy sant boroomam ci boole ji ko booleeg sëriñ Touba soxna jaara ak sëñ Mbàkke Mor Anta Sali kon sëñ Ibrahima noo ngi jaarale yi nga xam ne moo jëm ci jànkati xasida yi su ma bëggoon a lim danaa am jafe-jafe du ma wax ne du ma jotal waaye danaa guddal te ku ne xam ne ne li fi jaar liñ naan kasratul maxal te mullu sama kasratu zual tuujibul man su ma bëggoon a lim te yaakaar naa sëriñ Souhaïbou ak Cheikh Mamadou Fadil te ñoom ñëpp ku ci sa trondoo dellu ci sëñ Tuubaa eh, ñu jaar fi ak li ñu waxtaane defe naa sunu guddalee itam xëy na dégg moom ci sëñ Tuubaa kenn du ci tàyyi waaye dégg moom ku ne xam na ne nit la mën a déglu lu néew la waaw kasratu suwaali tuujibul maam te boobu ba léegi ñu ngi boole déglu ak joxe kon dañu lay ndokkeel ci bis bi rek siyaar la ci bu baax ñaan it nga yàgg koo taxawee siyaari jànkati xasida yi fi nekk ndax bis bi barab bi nga ko di defee jox na ko wëlër bu toll ne bi mu am ki nga koy defal waaye guddi gi nga koy def nag marhaban bi laylatil xitqi wal maxfira tuuba li man xamila fii ka xayran salaawa salaam moo ko wax waaye wawaylun mi man amila fii ka charran moo tax guddi ga ju ma jëf ci bokkut ak jëf ci gëneen guddi hmm. déedéet bokkul ndax dane guddi yonte bi saa sallam moo wax guddi ajuma ne ko yaay guddi gore ci sawara yaay guddi njëggal ne texe ñeel na képp koy def lu baax ci yow kon guddi gi bu jëf jii nga ciy jëf bokkut ak nga jëf ko ci guddi gee nu weesu na ko sëñ Saliou waxe woon bokkut nga def ko guddi gee ñu jëw ndax guddi gi moo ni toll xam ngeen nit ñi ci faatu sax ci guddi gi du ñu gis munkir nak nakir malaaka yi laaj ci bàmmeel aw laylatul jumuwa mintum saa la sëriñ bi wax te te ñooñu ku ne xam na ne ku sañoon doo leen gis moom ñooñu ñaari malaayika yooyu munkir ak nakir ku sañoon doo leen gis sëriñ bi melal na leen ci ay mbindam sawtaahuma ka misli rahdin qaasifi aynahuma ka misli barqin qaatifi yaxruju min famayhima mislu sharar inda muqaatabati masuulil bashar laysa yusaabihaani jinnan aw malak maa shiddati dayq wa siddatil aal nga xam ne ñu ñàng-ñàng lan waaye guddig ajuma gii dañoo wax ne ku ci génn àdduna doo leen gis kon guddi gu tedd la xoolal bindkatub Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo leen doon xalaat ak di xalaat bàmmeel ci waxtu taw ba mujj nee na may wax ay bayt te bindaguma ko nee na ci sama xel rek laay wax sëñ bi tontu ma moom maa ngi ci biir naan layta shi'ar yi maa saa yakunu jawaab yi in atani fii turbati malakan waaw man man ak a rek ma xam lu may tontu buñ ma dugalee ci biir bàmmeel ma ñaari malaaka yi laaj ci bàmmeel lan laa leen di tontu lay layta shi'ar yi maa saa yakunu jawaab yi fii turbati malakan nee dama koy xalaat mi bindaguma ko nee na ndaw daw yi ci biir taw bi agsi ne sëriñ bi nee na am ku ko wuy nee na am ci ñun ku teg feggoom wi mu doon bindee Cheikh Mouhamadou Lamine Diop moo koy nettali nee na dem nee na bi mu àggee sëñ bi génn xasida gu tooy xëpp moo xasida yi lépp a ngi ci génn xasida gu tooy xëpp ne ko xasida googu waxal ne ñiy xalaat li ñuy tontu malaaka yi laaj ci bàmmeel ne xasida googu ku ko mokkal doo gis malaaka yi laaj ci bàmmeel ba ñu lay tont xasida googu la sëriñ bi tënkee mi na lawaayal mahfuus nit ñi li man lahul wujud wal xidam mooy màllaawal xasida ga ci la ko tàmbalee kon bis bi mën na noo wax ne guddi giñ ko jox giñ koy def jox na ko wëlër waaye pakk bii ñu koy defee di Mbàkke Bawal xamal ne nag fii Cheikh Amidou euh, euh, Cheikh Cheikh Amidou mu Ousmane alfuuti yu ak tiliri yu nee na xat walidal xadiimu man qad sharaxa sarixatal muxtaari xaama sharaxa summa madaali rabbihi xaama sumuus wa umru xaynun wa daalun ka sumuus sëñ Tuubaa fii la fenk fii la gënee adduna <laughs> kon Mbàkke am na daraja joo xam ne benn dëkk fekku ci ndax sëñ Tuubaa jant bi dem ba daj adduna fii la fenk dëkk bii mama xaram la ko dameel amari ngoone may xaama shaq da din la 1194 1194 walam yaskun fiiha moom ma maaram bal askana fiiha akbara awlaadihi Mouhamadou Farid ma maaram moom la jox Mbàkke Bawal mu sancal mu jox ndigal ab taawam Mouhamadou Farimata mi nga xam ne soxna Farimata Seck dëkk ca Joosi ca Jolof moo ko jur rakk ji Ceerno Farimata mooy maami Seydi El dégg nga sëñ Moussa Ka naan ngir métti Mbàkke may sëtu mamaaram mooy ndey Xosmaan bàyyi Maodo maa ko xam nga xam ne taaw bi di Ahmadou Farima moo gor Mbàkke fii la doon liggéeyee liggéeyam bu rëy bi bi mu doon liggéeyal sëñ Tuubaa soxna Jaara fii la wàccoon di liggéey liggéeyam bu rëy bi maam sama am na am na ko ñuy wax maam sama Mariama Jóob maam Samba Mariama Diop moomu ma Samba Anta Ceebo moo ko jur moom la tuddee a Cheikh ma Samba moo soxna xaa Isatu Diop ñu koy wax Isa ji ñoo bokk benn baay moom ma Samba Anta Ceebo moomu ma dun pend bu ko jur Maxtaar Lumbe ko jur maam Samba moomu fii la ne woon ci Mbàkke Bawol bi fi soxna jaara nekkee nee na nu ne nattoo naa ko soxna si nee na dama daan taseeg moom buy rooti léeg-léeg ma xaw ko këmaxe sama mag ba ndox mi tuur waaye neen damay gis xar kanam bii gën a leer moo way xam nan li man jaala al islaama wujdaana wal jëhra wal kufra usraanan wa fuqdaana xasida googu sëñ bi da ko bëggoon bëgg goo xam ne da ko daan yëkkati lu ni ñuy jàng xasida yi di ko yëkkati sëñum satu jaxate nee na am na ci way woo xam ne sëñ bee ko soppil boppam mooy ba muy wax naan wa kam daraira la waxoon mooy mooy mooy mooy daratu kii tekki ak wujj sëñ bi ne ko foofa kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ay wujju ne wuñ fa woon ay gora ne woon xorru nga fiy def te génn fa ab daratu ne ko wa kam xaraira ngay wax waaye bul wax wa kam daraira wa kam xaraira xamin fala yuskiranna min sikriha isqaw suha baana te moom mi ko doon wax moom maam Sam Mariama booba sëriñ bi amagul sax juróomi at muy xam ne sëñ bi ab xawsu la wa kam xaraira xammil na fala yuskiranna min shikriha is xawsuha baana wax nañ ne sëñ bi da daan yëkkati lu xasida googu toog toogaaya woowu nga xam ne daanaka du àgg suuf di ko déglu maam sama Mariama moomu moom la sëriñ Moussa Ka eh, di nu firil xasidaam googu ma nga naan mutixatan rabbaha wa sayqa sayidaha ardathu afaaluha lillahi idmana di tagg soxna jaaram suñ Musaa naan maam sàmm Mariama mi daan raw cim lef xam na li man jaala moo ko taalif noon na bagaan nga woon fa soxna jaara mooy reerukaay yu bépp dongo daara maanaam la mas la dëñ te dañ daan rootaan mooy naanukaay bi gars yi dañ koy seetal seetaan xasida googu maam sàmm Mariama moomu teeloon naa annoncé sëñ Tuubaa waaye dëkk bii ñu nekk Seex Omar Fuutiyu radiyallahu taala anhu wàcc ni ci barab bii ngir di annoncé sañ bi bi mu ñëwee fii dëkk bii dafa def tànki neen moom Cheikh Omar moo tax Mbàkke dëkk bu mat a wormaal dafa def tànki neen di topp për kër yi buntu kër yi di ne damay siyaari dëkk bi ndax ki fi war a gën a adduna te loolu ama charan 1883 at moom la sëñ bi gën a adduna ca la sëñ Mor yónnee woolu doomu ndayam ju ñuy wax sëriñ Baara Sadio mi ngi fii ci Boofel ku doy waar la xam nga sëñ Moussa Ka ngi naan xay sa Sidi Sadio Sidi ñoo toppante bokk ndey ak bàyyi daawuñu kokkante Aïssa Sidi moo jur Mame Balla jur suñu morant sëñ Sadio Sidi jur Mame Bara Sadio ba Mame fii la newoon suñu morant sëñ dañu mën gan gii mi ngi may jaaxal nañ yónnee Mame Bara Sadio mi nga xam ne ni mu xame saaxir la xamee bàtti bañ agsee waxu ko dafa yónni ñaari jarbaatam ne leen mag daal du du jóg rek mu jóg ñëw leen demal ma mut yu sëñ Omar Ka ba mu joxee loxo Cheikh Omar Fouti la ne ko yaay sama turandoo yow yow yow yow laa bokkal ëpp nekkoon ko nag xam naa li ngay damoo mooy fan kullu fannin xindi ngay wax waaw nii fannin indi ngay wax ne waaye fi mu ne loolu ëpp am na lu ko ëpp doole mooy soo àndoo mën nag mën benn bëccëg képp ma defal la lu gën li nga xam ne ndeke am na leneen lu fi ne lu tutum jàng rek suñu rëkkaan ni jox ko lox mu ne ko yow yaa yor daara yi alxuraan ja yaay jàngaleel maam Baara Sadio mu ne ko waaw te moo doon jàngale ña moo yor daara yi xam-xam ja moom mu ne ko waaw mu ne ko ba ngay bind ci suuratu ci euh, ba nga àggee ci wala wasilatin wala xaamin danga caa juum ndax wala wasilatin saat la war a doon nga dem def ko sin suwoo wala xaamin aalonku la war doon nga def ko ani boo demee ci àlluwa ja na ko seetaan ne leen lu leen lu leen seen nijaay yoon yónni ñu dal di génne piisum ndimo génne ñaari dërëm ne ko piisum ndimo bi nee na sarax la ñaari dërëm yi nee na sa hadiya nee na it am na laaj bu mu la bëgg laaj mu ne leen bismillah ñu ne ko ndax julli farata mën nañ koo ubbee fatiha mën nañ ko ubbee basmala mu ne leen déedéet mësa bi ñu nekk malik la julli farata kenn du ko ubbee basmala fatiha lañ koy ubbi ñu ne ko euh, euh, nee na ndimul yi de sarax la ñaar dërëm yi addiye la mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne sarax bi man sañu maa jëfandikoo sarax te sarax ak addiye kenn du leen boole daal ne ko addiye ji ñaari dërëm yi ñetti dërëm la dërëm ba ca des ma nga mu suul ca jàkkaam ma ngay jooy di yuuxu ngir yàkkamtee ñëw ci man Cheikh Omar Fouti ba mu leen di ñaanal di tàgguwug yéen bind na xaatim boo xam ne mooy Musalazul Ghazali ba mu noppee ba mu ngeen ba mu taflee dafa fàttee far xaatim ba fi ne nii may wax ak yéen rawaan ya ña ngay xat-xatloo ca naaj wa di wattu xaatim ba ña ngay jooy ngir naaj wa lakk gam leen di lakk te sañu ñu faa nekkoon na fari xaatim ba te yóot ma sama addiya te ñëw nuy si ma ndax yeyoo naa nuyoon